Guys, what up guys? What's up everybody? It's up guy? It <laughs> what's up big man? You know what I'm saying? don't know. My brother from another mother, I you my bro. That good from Belgium, I got you. So my guy, yung paro. Nyom uh, khadi mo Italy too. Uh. Guy Japan, from uh, everywhere, from like Malay shout out kwa. You know what I'm saying? Before going faster, allow me to introduce myself. I go by the name of M Malachon, you know what I'm saying? from West Africa, Senegal, you see the town, the Kumaku Malamo. You know what I'm saying? Yeah, some guy, you like big, uh, you are. The biggest subscribers, you can get abonnable kitchen with chat by chat, man. Buga, if you know, winter hall in your Buga review, I'm going to take a take in quoi. But for a minute, you go

base bu doon affaire ay courant littéraire la trois troisième courant littéraire bi base moo koy indi quoi tu vois te dama ñëw ak gars yi la mooy troisième courant littéraire bi quoi xam nga first of all fii rab bi ñu koy démarré c'était ay Mbacke Dioum ay MC Lida ak lan nga gën a bëgg affaire yooyu noonu yoo xam seen yooyu noonu ay Mbacke Dioum sama yaay nag ma baal yooyu ñoonu kii bi quoi fu xama rek ñooy pionniers yi quoi après c'est le gars yi jël kii bi mu sax euh, drapeau bi ay PBS daara ci jant bi suñu flavor affaire boys band yi benn gain benn ñetti gars yi ñaar ñi di euh, kenn ki di fay euh, di rap kenn ki di xuural ñu nuroo ay yére affaire yu yi mooy noonu rek loolu doon boys benn bi quoi loolu moo doon hip hop Sénégal ay sunu flavour jant bi gars yi quoi mbëggeel ay neexoon hip hop bi neexoon ay Bamba ji Fall fuural yi noonu quoi tu vois loolu mooy premier courant littéraire bi quoi si hip hop bu doon courant littéraire deuxième bi ki indi mooy euh, waa Rapadio Iba Ibrahima Ndiaye Iba Saint-Fil Keyti ak Larry Bibson ñu ñëw bouleversé hiérarchie bi indi deuxième courant littéraire bi na gars yi kat it's not all about entité kii euh, maanaam euh, making just good music but dañu war a def bind mu taaru ay rib rhymes yu rhymes yu sax ba pare di dénoncer rab boobu noonu waa rap ñoo ko fi indi ñoo ñëw ne gars yi di ngeen def baaxul quoi faut pas toujours ñuy danser di folklore quoi am na xam a indi mooy lan mais a dañu war a éveillé peuple bi loolu mooy di break bi groupe yu bëri si lañ tase ay suñu flavor ay black mbooloo gars yëpp si lañ demee tenue benn daara ji moo si tenue peut-être gën a microphone soldat ne ñun dañuy tenue du ñu bàyyi quoi mais après boys band yëpp a disparaître quoi Rapadio ñëw bu mu ñëwee indi loolu nag muy rabu lan rab bu sadik bi c'est là après ay BMG ñu ne fi BMG Rapadio ay Sikki Saka Saint-Ville ay ay kër gi ñoo ñëpp si kii boobu la ñu bokk quoi Saint-Ville di dénoncer xale yu jigéen ñi di retiré wu si concert yi fois yi parce que mujj gi gars yi xemere la ñuy wax tu vois léegi loolu bu mu ñëwee ba pare nag c'est la base pël nag <laughs> le Messi barki sëñ boobu léegi base bu mu pëlee noonu il est venu avec un esprit américain quoi tu vois mu ñëw esprit américain bi mu ne gars yi bu la neexee ngeen kaas sol seen i jëngal yu ngand kii mais dama ñëw pour make money pour make good music saint fil ba pare nag mu neex quoi ba pare xëccaat gars yi quoi di jox rab bi maanaam silu kaana quoi tu vois loolu kaana base def tout à fait ko def ko defee ay cinquième dal ko

paas génnaat euh, benn somam classe nit dof tu vois yaaxate ko dem Saint-Louis lu dis ba ma ko affaire noonu quoi tu vois hip hop damuy ndey damay indi rek kiiwu base quoi maanaam curriculum bi laay indi quoi xeex ko donc base noonu la doon demee quoi par la suite muy ñëw di teg affaire ñaan booy bi rabul day jéem affaire kaana kaanalu për për ancien fil di dem di dem ba base di teg bi concert yi fi taxaw yi moo koy teg Biscuiterie Médina mu ñëw indi ay limousine teg labelam Buzz Lab nekk rappeur bi jëkk gën a mixtape dem euh, Trace TV jël fa pay ak nañu dem bi isafil maanaam def affaire bi business di jouer ci film yi isafil teg affaire mu ci grand yëpp après ñëpp nangu ne booy bi moo loolu donc loolu noonu moo dal booy yi ju rap fii yëpp muy ay Hakill ak BMJ ak One Lyrical ak booy yi ne fii di rap ay Maniga Maniga di def affaire bu kaane baas mooy seen daadi meen mooy sa wasila si moom ngeen jox ko moo tax baas bu faa dafay wax la gembi laa biiral ba bëri

saafil du game quoi moo innové affaire bi gëm na rappeurs yi léegi war nañu sol ay nganit tubéy mën nañu sol ay pain jàmm lu nice ba pare rap utile mën nañ teg séance jooju saaf yi di lancer message bu utile loolu baas moo ko def tu vois donc gars yi dañuy reconnaître baas bu mu def quoi te swag beeg business bi si ay film closes yi ay DK Spirit lépp mi ngi innové di jouer si ay film café avec euh, Samba Mangane xam affaire noonu di yor ay oto yu rafet loolu bu ñu ko defee di xam ne base la bu jëkkoon gars yi dañuy théâtre di passe cent di yor donc business bi bu doxee en contrepartie base la quoi tu vois dafa am buzz te buzzam jeexul mi ngi nii mixtape bu vidéo bi benn couplet bu ndaw la fa dóor ñëwaat ci game donc base mooy loolu quoi ni a kaan ay Samba Peuzé ak ay BMJ ak booy yëpp base mooy seen daal yi meen mooy seen wasu la donc da nga koy nangul quoi Respect game bi fu mu toll la troisième ba te base mu fi bële kenn tege quoi rappeur léegi maanaam li ñuy def li lañuy la ñuy léegi amul ni ñoo fi rab loo xam ne mooy seen identité rab a indi mais ni ni nii ñii rapajoo léegi indi ko donc shout out a léegi yaa Omzo arrondir lu nice ngeen lu mu ngeen dara quoi donc ani fan si buzz la bi mooy loolu na na aimé yi bësu mbeen <laughs> partagé leen vidéo yi <laughs>